te ku ko def maa la waatal ci alquran sa noonu eh. sa ah? du nelaw eh? sa noonu eh. du toog sa noonu du taxaw xam nga muy lan <laughs> Exilé, Muscoco. borom xaas sama waa jaani nii tey ma way la bay jo borom xaas kenn nga génn. gis nga jaw sarax bi ma def ngir yàlla tax te yéene ci sama aajo kooku yàlla dina ko def muy taw féex jaw mag ñi danga nga daan gis musiba bu daan bëgg a am ñu ne nañ génne galaas na boroom kër gu ne génne galaas teg sa buntu nekk wala nga génne ko sarax gis nga jaw galaas jàmm la jaw ndox jàmm la jaw daay buy tàkk ñu ni uti ndox fay ko mhm. musiba buy tàkk ci réew ndox mën na koo fay jaw mhm. sarax gënul sarax bii te mas naa koo wax mhm. te ku ko def maa la waatal ci alxuraan sa noon eh. sa noonu ah? du nelaw eh? sa noon eh. du toog sa noon du taxaw xam nga muy lan <laughs> nit daan na defal boppam loo xam ni day tëdd nelaw du dem ci sëriñ du takk naan te ku ko laal ñëw ni ñu ni ah diwa lay seet nga ne ko bisimilah na agsi du mën a dox bu baax wala buy wax day sëgg xam nga lu ko yóbbee sarax bañ ko def ko xabtal boobu mu ñëw te du ko tey. mooy mooy bii ma lay yax jaw gis nga jaw juróom-ñeent guro yu xonk xam moo tax man la guro yu xonk du jëmul ci lu baax. dëgg lu ma baax de man lu ma lay wax day am séeri pour ëllëg moo tax. ñetti potu xorom. ak ñetti potu dugub. boo xam ni dañ koo sook xam dugub ñaaram buñ ñu soog ak bu sookul bu ci nekk da ci am ñetti pot ak benn potu meewu biridel yaa ngi may déglu jaww bu baax euh, nga bàyyi ba bisu talaata mooy mardi diggante jàpp deux heures jaw nga dox dox ba jis silmaxa bu dee góor na ko jox góor bu dee jigéen na ko jox jigéen nga dox ba jox gis silmaxa nga ni ko bismillah sarax bii ma lay wax jaw naaj bu tàng jër lu la waay jéemal ak fexeel ak waxal dana ñëw ba teew gis nga ku ko def kër dina tas ndax képp ku la waxal dina ñëw teew mun na diir damaa jaaxal tudd na la te xamul li ko tudd la lan la. dégg wax bi lu mu def rek dina feeñ loolu moom man maa la ko wax moom. allahu akbar dégg léegi xam nga mag ñi daan nañ génn benn sarax. di ci def di ko toggee cere. cere avant bi doon cere lan la. dugub la dugub lan la dañ koo ji lu ko fekk roose ko lan moo ko roose ndaw taw gis nga ko misaal ma loolu la woon gis nga sarax yooyu mag ñi daan nañ am bis yu ñu ko daan faral di def di ko def ñetti ndabu laax daan ko yóbbu ci daara te waxtu tàkkusaan dara gënu ko dégg wax bi waxtu tàkkusaan dara gënu ko bis altine dara gënu ko ci mooy cere kooku yàlla dina la musal gis nga dugub buy ñor nga dégg ñu ni ah dugub ba ngi waaj a ñor ñu ni njëwteef yëpp mer na ñëpp jug nañu léegi jaww bu dee maanaam kii ba yàpp la bu yàpp la man saraxu yàpp bu may defal nit dama naan ko demal nga jëndi ko ay waxuma ko nga ko demal nga jënd ko nga jënd jënd ndawal defal ko sa bopp waaye waxuma nga dem jëndi xar bu rax wala bëy bu rax wala ganaar naan xam nga boo nee ganaaru sécupture parce que li tax nga ni ganaaru sécupture am na lu mu remplacé boo nee ganaar gu weex tàll li tax nga ni ganaar gu weex tàll am na lu mu remplacé boo nee xorom li tax nga ni xorom ba ñetti pot ya wala nàngam am na lu tax boo nee gerte dangay dégg dof bu ñu génneloo loo te gerte coow la. ah gerte coow la. gerte coow xam nga ko. gerte mel ah bien sûr. bi wala bi non bi ñuy toj. Ah. da gis tey bu dee dañ la dañ la koy bëgg a dimbale ci cat. ci cat mm-hmm. jaw mm-hmm. gerte. Mm-hmm. ba dimbali la ci tuuti. buy ñor lu koy ñoral. suuf. waaw déet suuf si lu ngi dégg ñu nit tàng bi day tàng. day tàng bu ñor. Ah, <laughs> waaw loolu tax loolu day tàng. Ah, ah ko loolu misaal la. misaal nit ñi. Euh, da des fois dañ ci dañ ci dul bàyyi xel. pour nga ba pour nga xam. maanaam léegi looloo tax ñu ni gerte coow la. mais day dindi it cet. mais cat bi bi ci gën mooy bi ngay tojal sa bopp benn bopp bi loolu mooy wax benn gémmiñ moo nekk ci nit bu ne taj boobu am na lu mu génn te xamoo ko léegi nag taamu nañu it jaw nit des fois nga dem ci branche nga natt sa bopp ci branche li nga am ci poids déglu ma bu baax de li nga am ci poids nga jënd ko dugub am na nag ñuy jël yére sottee ko dugub bi ba mu jeex ñu defaat ko ci perkal def ko ci mbuus génne ko sarax loolu it baax na ba tey waaye it am na yu ñoo xam ne moment boobu ñu ko peesee rek noonu lañ koy boolee ak ceeb ak suukar génne ko sarax mooy poids yi nga xam ne am nga ko suukar tey defe naa maanaam lu mu mënul soppi amut suukar ah dana fekk it nga bëgg dara mu jafe it mu yombal ko ah. ceeb it ci biir la jëm est-ce que dégg wax bi dugub biit bu làmmiñ mënoon ci moom dara du sax. parce que yàlla moo ko. gis nga jaw lépp lu yàlla ala aaral boppam rek dara gënu ko. lépp lu dara gënu dëgg la parce que imaginez ki jël dara. Ah. ji ci suuf. kan la ko di koo gën a gëm yàlla daa am baykat. ndax yàlla ca mu jël alalam yëpp suul ci suuf. waaw ku ko aar ba mu jug. yàlla yan sarax na. lii mais boo ko defee nit léegi dem def loolu boo ko waxee léegi nit dem defi ko. sarax yi mën a gàllankoor nit dafa bare bare bare benn li ma la ci dimbalee mooy. lu ëpp voilà loo war a def benn yoon def ko ñaari yoon sax mën na la gàllankoor. Eh? jaw mbubb bu ëppee luñ la wax yëkkatil mbubb ma sinon lu mu romb. yóbbaale. loolay problème bi. Ah, ah, kon ah, waaw waaw mën naa ko mais mais li may bañ mooy. waaw tey. Hmm. yàlla mi ñu tiim. Hmm. des fois nga def liggéey bu bon dëgg day ànd ak sarax pour liggéey ba mën a exister. liggéey bu bon dëgg. lan moo tax même boo ko defee pare ngay def sarax bi. mooy caabi bi. par force mooy tijji wala mooy tëj. liggéey bu baax yi dëgg jaw lan moo tax mag ñi bu ñu wàccee kaamil ba pare ñu toog yi laax lu ci ëpp pourtant lu gën a foor wàccee kaamil amul waaye sarax ba day àggale sarax lu mu fekk fenn nga taxaw mën na la puus bu la fekkee nga toog mën na la yëkkati waaye bu la fekkee nga taxaw mën na la njatt bu la fekkee nga jat it mën na la tëral jaw dégg jaw uh-huh. foofu mën na la tëral développé si Salatoullah bi <laughs> waa xam nga lu weex wax naa la ko fii. waaw. jaw nee naa la tey boo gisee soow ñi ko xam dëgg sax bu ñu defee nii dañuy tuur ci suuf. waaw ñu jàpp tuur ci suuf waaw loolu mbir la. xam nga dafa am loolu ñuy woowee xam nga soow dafa weex. weex gi mu weexee dafa sell. moo waral ñu koy def ci loolu boobu mën na ñu ni wàcce nañu kaamil ñu ni nañu togg njabulaax ñu sarax ko xale yi wala ñu jox ko ñu doon wàcce kaamil yiw googu ñu ci bëgg xam nañ ni lu mu mën a mottali la ndax bu la fekkoon ngay daw bu la buufee rek nga dem xam nga loo fekk ngay daw diis mu ñëw puus la ba ngay daw 20 kooku sarax mën na ko te ñetti ndabulaax da koy def waaye ci kaw ñii seen sarax war na tool ñii seen sarax tool il faut ñu gëm ni nit ñi sarax universel am na gis nga ndox bu la neexee génnal teen bi yëpp di xëpp jàmm la rek ah, jàmm moom bu ëppee rek jàmm bu ëppee rek teewul it day doon jàmm rek sarax ndox xëppal dégg nga wax bi banaana fruit jëndal boobu moom des fois sax nga gis nit bëgg dara dëgg dëgg dara mu compliqué billaa yàlla xam na ko ak yonent bi bu ci nekk rek mën na cee peese ay atam jënd ko ko sarax par exemple bu nekk bu dee am na vingt cinq ans mu jënd vingt cinq banaana vingt cinq pomme xanaa xamoo jaw loolu sarax gënu koo gaaw te jarul ngay dem sax si sëriñ di seetlu. xam nga boo amee trente ans. nga jënd trente pomme. trente pomme trente banaana. orange fruit yi rek bu ci nekk boo ko mënee. def ko trente. lépp lu sax ci suuf ndox roose ko yàlla mi ñu tiim dina la jàmmal te dina la yëkkati. dégg wax bi ba mu des limon. ndax dafa weex. waaw <laughs> waaw waaw déedéet parce que damay bañ ba damay bañ noo xam nga dangay dégg oto. oto lan moo tax mag ñi daan jël doomu limon bu wow di ko ci bàyyi. gis naa gis nga ñett limon bi limon bi hmm? boo ko pàccalee boole ko xooxu buy. xooxu buy bu ñu màcc te xamoo borom. xam nga dafa am xooxu buy yoom da gis ñu màcc ko rek sànni. gis nga boo ko amoon tey bu ñu màcc xamoo xamoo borom. nga jël doomu limon yi paccal ko mooy doom yi ci biir fexe cee am ñett jaw nga fexe ut benn donju këriñ bu ndaw boole ko takk doxal fu la neex seytaane mënul ci yow ndax dëkk boo ragal boo fa demee di nga fa dugg ak jàmm génnaat ak jàmm lépp lu la seex da lay yàbbiwaat kon gars waaw li limon lépp lu la seex da lay yàbbiwaat moo tax bokkul fële d'accord waaw kon lay <laughs>